baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xeyran cheikh bi kii nee na dafa am vidéo bu ñaaw bu bon boo xam ne da koo gis fan yi nga xam ni koor gaa ngi waaj a ñëw mu jóge ci waajoo xam ni nee na lu bon rek lay wax ak lu ñaaw waaju ñuy wax Ahmed Khalifa Niass muy wax naan eh, jigéen ju nekk ci sëy nit mën na koo ëmbal su ngénte la mu ñëw fëgg jëkkëram ibil ko mu tudd doomam euh, dem nee loolu lislaam daganal na ko mu ne nag mu gis ni koor gaa ngi ñëwaat te xam na ni euh, waxam yu bon yooyu ci ay koor rek la koy wax mu bëggoon daal loo dénk askan wi ba nga xam ni euh, dinañ mucc ci ay waxam yu ñaaw ak yu bon yoo xam ni mën naa sànq doomu aadama. aoudu xam naa ñiy laaj ci fatawa nag lu ne danañ ko laaj waaye question boobu yi moom jàpp naa ne laaj ko ngir ñu tudd tontu li rek taxu ko jóg ndax ci suñ njortul rafet <coughs> mooy julli ci senegaal boo ci seetee ki doon wax wax joojee ñoom ñëpp leer na ci seen kanam ne masala moom yi kii di laaj tudd moom ay neen la maanaam nekkul ci chariatul islam te it nekkul ci beneen charia ci diine yi fi mas a jaar yëpp nekkul ci ay aada nekkul ci ay cosaan nekkul ci am xel mu mucc loolu moom jàpp naa ne ñëpp xam nañ loola kon taxaw fi di leerul ab àtte moom daanaka sànq temps la amma jëmm ji nga xam ne nag wax ju mel noonu ci moom la jógee suñ tuddul woon aw turam ci fatawa loola moo nuy gënal ndax yëkkati ay kàddu yoo xam ne jëmm jooja moo tax mu yëkkatiku loolu moom nun yàlla daa dogal mu bokk ci ñi ko seexlu moo tax genn kàddu gu jëm ci moom duñ ko wax waaye nag masala mi lan cay wax rek e, nga xam ne day gën a xóotal fiq ci wàllu lu jëm ci mooy yàlla ak ci état bam loolu danañ ca wax Cheikh Abdallah mooy yàlla def bàkkaar bu mag li muy rëy rëy rëy ab étape la ki njaaloo lam def bàkkaar bu mag la bu garaaw boo xam ne mbugal sax mënees na ko ko caa def waaye li muy rëy rëy am na lu ko féete kaw ci biir njaaloo moom yi ci boppam mooy di ko def ba noppi di ko daganal daganal moom meneen musiba la mu yées boo demee ci téere fiq yi ci baabu ridda bunt ba ñuy waxee ña tubbi dañuy wax ne képp ko istixlaal kabira bàkkaar boo xam ne bu mag la sax ne lii yàlla xaraamal na ko nit ñëw di jéemal lu ñu te ay bunt yum koy daganale waroom xam-xam yi fiq yépp dëppoo nañ ci ne kooko moom génn na diine lislaam waaye étape boobu yi li muy garaaw garaaw am na beneen bu ko yées mooy nag di ca woote la muy def moom nit ka wëlbatiku di ko daganal wëlbatiku di ko jéeri nag ca nit ña di leen wax ne lii kat mën naa nekk mooy jóg leen defi ko kon nag ñetti étape la yoo xam ne benn bu ci nekk ab nattu bu rëy la boo xam ne bon nga jéggi na dayo waaye noonu yi ma ko tegtalee bu ca mujj rek moo ci yées ki jëf-jëf ji musiba la ki ne daggan na ak génn diine la ka cay woote nag daa génn diine ba noppi moom di woote ci ak génn diine bëgg nit ñi génn diine waaye ni ma ko tàmbalee rek mooy alhamdulillah julliti réew mii moom yàlla dimbali na leen ba yooyu masala luñ gàtt-gàtt xam-xam ak luñ néew néew ak gëstu ku ko ci dégg ku nekk da jël say yoxo def ko ci say nopp la ngay wax rek mooy aoudu billahi min ashaytaani rajim di ñaan borom bi tabaraka wa mu jàmmal nu te sàmmal nu sunu diine sàmmal nu sunu jàmm ci sunu réew te fegal nu ay képp koo xam ne dangaa yore aw ay wallahu taala alam